ndeysaan mbokk yi jërë ngeen jëf euh, euh, damay faral di wax ni rek ndeysaan ah, Sahel Network TV la Banjul Gambia ñun Gambia lañ am moom la ñuy sagoo moom la ñuy ndamoo ba ñëwaat mbay la mbokk yi nee naa soppana bi nag moom a génn ci tur bu ma waaye mën a ooyee ci àdduna dinaa jëndaat xar gannaaw euh, coronavirus bi incha allah ma ngénte waat tuma ko tëdd suma ko soppana bi mbay mm-hmm. anti àndal su ma ndey joor bu gàtt bu xees bi macha allah nee naa su yooloon rek problème lay am <laughs> anti Aïcha yow tay dafa mel ni or bi daf la frappé de des sen bokki niñ taxtal rek lu muy yóbbali bés bi la anti ana sa kanam bi tey daal mënuma ko xàmmee xanaa li ñu indil dafa xaw a daw yaram ah, well tey moom lu ma indi ah, dafa doy waar te daw na yaram trop ah, jigéen boo xamante ne mu ngi am breast cancer mu nekk di dundal lu ñetti ànd ay tolof ak jafe-jafe. oh my god oh my god oh my uh, there is a story of this lady that is seeking for help here in the Gambia. she is suffering from breast cancer and it's a single mother with three oh. children. Hmm. she spent her money traveling to Senegal to get treated, and by the time she returned to the Gambia, mm-hmm. she was owning a rent pushed out of the house by the landlord. Oh. Now she is homeless with three children living in a school that gives them shelter. Oh. But when school resumes, she might not have a place to stay. She is so asking for help from kind-hearted Gambians. Of course, where, where, would, where would she stay? I don't know. Because it's a school premises. Mm-hmm. How about you? Definitely, law hamne dafa meet man at the first place. What I would say is like. the uh, damaa njëkk a wax ne borom kër gi yal na ma yàlla jégal waaye def na loo xam ne waru koo to be kind enough parce que to be koo xam ne like euh, dafa feebar jigéen la benn te yow gis nga ne xëy na borom këram euh, bàyyi na ko mm. abandonné na ko toppatootu ko te am na ñetti doom wëlbati ko mu feebar te feebar boobu dal ko mun na laa dal yow borom kër gi mun naa dal sa jabar mun naa dal sa doom mm. kon yow su boobaa yow nooy def euh, jar naa la te parce waaw gis nañ ne euh, amount bu mu ko ameel sax loolu sixty something thousand it is sixty four thousand dalasi euh, loolu moo tax mu génnee ko te moom mu ngi mu ngi nekk di saaku ndimbal si si nit ñi nañ ko dimbalee because fu soo gisee jigéen bi si boppam sax euh, nu mu appuyee ak njabootam dafa daw yaram daw yaram bu nga xamante ne foo ko nata rek weesu na ko oh, oh. jigéen bi sona na sona boo xam ne amoon na time dem na senegal waaye amul lu mu fajoo mu ne moom tey su waree dem dañ war a dog benn weenam bi oh. te amul dara lu mu xalaat lu dul njabootam tànkam yu sew yu mu bàyyi si gannaawam te am na góor boo xamante ne xale yi seen papa wan na ko gannaaw mu ngi bitim réew ah, donte kenn xamul nag lan moo dox digganteem ak góoram ba tax ko ko jox ko gannaaw loolu ñun mënuñ see wax lu bari waaye tamit according moom lu mu indi si table bi yëf yi dafa daw yaram daw yaram boo xam ne man dama naan ana nit ñu baax yi. man man occurs in between mm-hmm. uh, mom and husband. Mm-hmm. The husband has a responsibility of mm-hmm. taking care, care of, of the kids which is very interesting. He should, he should play a great role. Yeah, I know. Because he's the father of the children, yeah. especially three young children. and then and, and, and then uh, Kushi Gena Mak Momugi ten years. ku si mag mu ngi ten years sa soo ko seetee sax kooku xale comme ñëpp ay xale lañ mm-hmm. euh, góor bi si boppam comme noo ko waxee kenn xamul lu mu jotee jabar ji ak lu mu munti jotee jabar ji yoo xam nga ne sa jabar mu ngi si feebar mm-hmm. mu ngi am ay xale yu ndaw mm-hmm. at least nga ko yónnee alawansam sax ne ko ne ah man de lii laa yor dimbale ko ko ak say doom pour ñu mun dimbale ko parce que moom mu ngi nii mu ngi am problème yi faju mu ngi am problème yi fay luwaas te mu ngi nii di dem koot te landlord bi daf ko yóbbu koot landlord bi sax man damay wax ni ban a landlord is that guy. na landlord am president soppana bi nit koo xam ne mu ngi dëkkaa yow ñaata at xaw ma at la xaw ma weer boroom mu ngee fay all the time kooku su nekkee si situation ay benn yow yaa ko war a understand because te ma ne comme xam na li xew de waaye dafa topp bëgg bëgg am yal na ma yàlla jégal yal ma yàlla fee wax xeet waaye mbaadu xeet yi ma xam ne ñu nga xam ne ñoom ñoom ah? ah. waaw dañ wax te dunda mm-hmm. loolu ñoo amul patience non waay dafa rafetut loolu dafa rafetut jigéen joo xam ne mm-hmm. wan euh, euh, she has cancer mm-hmm. xam ne jombul kenn feebar la boo xam ne jombul kenn du feebari gàcce on a sànga ba pare waxuma la dara xale yi ndaw yooyu noonu nga ndaw si ñetti problème la am jëkkër ji ko jox gannaaw jàngoro ji ak feeding pour xale yi. Mhm. mu dëkka si lu mel ni school. Mhm. soo gisee néeg buñ ko fa jox néeg bi. billaahi bagage soo fa tëddee nii sax bari na bagage bari bagage ba oh. bagage sam yëppam fa. njabootam bi wér ko moom la wax sax moom dafa ne buñ ko buñ ko laajee dafa ne moom yéenay sax. Eh, daf dee daf dee dem ba stress waaye su xalaatee doomam bi waaw moo tax mu dee gom yàlla rek ne xaaral ma toog yàlla dina ñëw. non non xam nga xam nga xam nga ah, sometimes this is what pushes some women. to do certain things. you know, which, exactly. Mm-hmm. Thank you. I'm going to explain because they, she can just be fed up and say, okay, look, let me just leave these kids here and go my way mm-hmm. and disappear mm-hmm. suba xale yooyu noonu dañoo dugg into problem on come on come on yenn góor a def rafetul yaa ngi bitim réew soo amul dara communiquer ak moom mm-hmm. waxtaanal ak moom ne ko awma dara waaye nañ jéem seet lan la ñoo def because booy Europe nekkul Gambia come on man kii change na suma moom yeah my my people we also leave our comments and then help the please. lady. She really needs help. Please, please, Don't please. forget the subscribe Thank you. button and then the thumbs up. Thumbs up. Bye -bye. No, no thumbs up. For me. <laughs>